dellu siwaat nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale fii ci seen site bi ñuy wax Tanime TV Seydina moo nekk ci xarale gi mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci cant yi ñuy woote te cant yu ci bari bu nuy woote dañuy wax sant sëriñ tubaa wala sant sëñ jiw sàngam ak tarixa bu mën a bokk wala fu mu mën a bokk ay nag ñu seetlu ci fii ñu bokk ñun muy tarixatu murit ñu gis loo xam ne daanaka day mel ni phénomène bu xaw a yàgg la boo xamante ni euh, ñu bari daal xam naa bu ñu ci defee taxaw seetlu yi tamit yëkkati wuñ ko ñu dégg seen kàddu tey nag ñu bëgg cee yëkkati sunu kàddu ngir wax ci phénomène bi ñu koy defee euh, kenn du wax de wax dëgg yàlla sant sëñ Tuubaa ku ko dégg ci sam nopp wax dëgg yàlla li ngay njëkk a def bu fekkee am na benn ngëm yàlla wala lu baax nekk ci yow da nga koy rafetlu. ndax mag moo xamante ni dafee nekkoon dundam gépp gépp gépp mu def ko ci liggéeyal yàlla ak liggéeyal ko yonante bi ak yéene mboolem jullit yi ak ñi du julli sax lu baax kooku wax dëgg yàlla bu nit demee ba xolam yëngu mu yëg ne dafa war a sant kii rawatina nag ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ay taalibeem lan mu fegal leen lu bari ci ay nattu ba ci attaa sawara sax mu fegal leen bu du woon mooma dëgg-dëgg danan ñaaw njortu ci seen digganteek sawara waaye sëriñ bi liggéeyal liggéey bu rëy rëy bokk na ci kooku nag wax dëgg yàlla bu nit nee da koy sant doo man lu dul rafetlu ko ba keroog ngay gis jëf janam ko doon sante ba xam dëppoo naag ni sëriñ bi moom doon sante yàlla ak doon ko sante yonent bi bu fekkee nag ñoom ñaar am nañu wuutee nag wax dëgg yàlla da ngaa war a delluwaat xool li ngay sante sëriñ bi ba xam noonu la wala déet ndax ki ngay sant kat war na buñ ko nee nii lan la doon sante mu bég ca ku ko dégg tamit bég ca ku gis na ko doon sante xam ne bég ca waaye sant ndax sëriñ bi koo xamante ni buy ñaan yaa malikal mulk yaa man jàlla an xawadi irham jamiixal wara yaxaadin rada koo xam buy ñaan day ñaanaleel ñépp ñu dul julli sax da leen di ñaanal wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma koo xamante ni day ñaan yàlla mu def ko muy liggéeyalkatul boo xamante ni day liggéeyal mbooleem ñi nga xam ne ay jullit lan ah kooku wax dëgg yàlla yéene leen lu baax kooku wax dëgg yàlla boo demoon ci xasida googu da ngay dem sax ba da ciy nekk mel ni ku nekk avocat jullit yi ndax bàkkaar yoo xam ne wala lu leen suñu borom nar togg mu ne ko ñiikat ban bi nga leen bindee suuf si moo tax ñu lay mooy waaye du caagee nag sax li nga leen bind ci seen roog sa roogu sell gi bind leen ci melawu sell woowu nga xam ne ca malaxul laa loolu dan dun la mooy mukk bu nu gisee cant yi nag li ñuy def boo de yëree kart yi nga xam ne wala nga déglu télévision wala rajo bi bu nu noppee ne ñu ngi sant ña ñu njëkk woo ca bis ba wala di leen ko njëkk bàyyi loo xel amaana sax ñu daraja leen ko da ngay dégg ñu ne monsieur le président ñu ngi lay woo ci bis bi mu lañ ko darajaale attaa ñu ma pare si fay sàll mi nga xam ne mooy soxnaam ñu ngi lay woo ci bis ba te di la ci séentu di la koy yëgal Marème fay bariwut bis yu muy teew ci yu mel noonu président bariwut bis yu muy teew ci yu mel noonu wax dëgg yàlla bariwu ko ataa ñu ne ministère sàngam ku nekk ci état bi ministère sàngam ñu ngi la koy yëgal di la fàttali sunu bis bi di la ca woo député sàngam ñu ngi la ciy woo attaa ñu dem ba ci chrétien sax koo xamante ni bokkuñu diine sax ñu ne ko ñu ngi lay woo ci bis bi ndax sunu xarit nga ñu ngi la koy yëgal dëgg eh, ñu ngi ci bis boobu nga gis ne attaa ñu dem sax ba borom xaalis bu am dañ ko ciy tudd borom xaalis boo xam ko am xaalis benn ngay góor wala ngay jigéen bu fekkee ci woy ngay yëngu wala ngay yëngu ci leneen it ñu ci bari dañ la koy yëgal wan na leen sama bis ba maa ngi la koy fàttali sama xarit la. te ñii ñu koy yëgal ñëpp président bu fekkoon ne suba folleeku na kenn dootu ko yëgalati bis wala boog ñu néew Marème fay sàll bu fekkoon ne përëm moom waxaale ma ko ndax moom lu mu am pare borom këram a tax waaye bu borom këram folleeku yoratul dara kenn dootu ko yëgale ministre bii ñu koy waxee suñ ko wàccee sax daanaka dootuñu ko yëgal député bi koy yëgal ba ci maire bi naa maire sàngam chrétien bi ñu koy yëgal moom waxi nopp. atta yooyu ñu koy defee yépp da ngay gis ne ñooñu leen ciy woo koo xamante ni chef de société la ko am xaalis waaye kenn koy gis ñu lim ko ci wala ñu woo ko ci ko xamante ni borom xaalis la daanaka du am ko amul xaalis du am danga ko ko yëgal rek ngir yàlla amul bu nuy woote sax li ngay seetlu bu nuy tudd alxuraan jeeg xasida yi ca mujj ga lañ koy tudd te dinaa ci ñëw programme bi kat ñële ñooy kii bu ko defee ba ci bis yin koy jàpp diggante samedi wala dimanche lañ koy jàpp samedi wala dimaas bis yi nga xam ne moom lañu ñu bari di jàpp ci ñi nga xam ne te yonant bi sallallahu alayhi bis yi gën ci bis yi yi mooy ajjuma mooy sunu bis mooy sunu bis wala ñu def ko guddi ajjuma bis yooyu alxamis ci guddi gi bët sedd ajjuma wala nga def ko bisu ajjuma ci yoor yoor gi ndax bis boobu sun feet la sax ñun feetu jullit yi bu ko defee fanu bu weer bis yi koy jàpp noonu ci bis yooyu lay doon ba ci weer wi attaane dañ koy jàpp ci la cinq le dix le treize bis yooyu nga xam ne bisu bu marqué lay boo xam ne jege fin mois wala dara fin mois boobu fekkee dafa tërëm première janvier dafa tourne première nangam dafa tombeek le cinq le dix ak le trois yooyu ci lañ koy jàpp waaye bis bu mooy yooyu duñ ko jàpp néew na loolu nga dégguñu ñu naa la le vingt le vingt cinq lañ ko jàppak wala la quinze lan ko jàpp wala la kii yooyu bariwut moom dañuy seet fi weer wi fi nga xam ne day kii loolu lépp da nga ciy jublu ne ñi koy tudde ak ñi ni kii dañuy xool ne heure kat dana fekk ñoom ñu am xaalis pour man leen a jox la nii de dem ba fa nu koy defee sax béréb ya niy wax da ngay dégg la Sorano wala Grand Théâtre bis yooyu foofa lañ koy defee te foofa boo xoolee bis bi boo tuddee foofa rek la sa xel di njëkk dem mooy fu nu daan foyee la fu nuy foyee la moom moom moom buñ ko fu yóbboot fu nuy àbb la dem di ko fa defi <coughs> koo xamante ni bérébu fowukaa la waaye amaana defee ko fenn ba ci dëkk yin koy bi bin ko gën a defee benn ña ngi koy gën a defee ndakaaru mu doon capital ba gën a doon ci kii te wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa min koy defal de am na dëkk boo xamante ni yaakaar naa ne dëkk la boo xamante ni eh, am na ko laajoon genn kilifa sëñ Abdou Xaadir mas naa waxtu weeru koor jot mu tàggu sëñ du mu saane ko damay woori damay bëgg a dem Touba pour woori foofu mu ne ko ah lu baax de baaxee ne fépp waaye sakkan na ne Touba sakkan na ne Touba kon jàpp naa ne waxtu yàlla foofu tamit da ngay gis ne da ngay gi bi ci desaat da ngay gis ne heure bu nu demee ba nekk ci la nga xam ne moo di bis baag yee ci xew yëpp ba ci eh, bis bi loolu lañ koy woote diggante samdi ak dimaas mooy doon bis bi benn bi ci desaat boo demoon ba ca. programme ba ba ñi koy jàng sax ataa ñi koy jàng ñiy waxtaan ñëpp waxtaankat bu mën a xumbal gën a mën a nettali xista gën a mën a sosal sëñ bi daanaka moom la ñuy jël ngir mu waxtaanal leen ndax nan naa boo waxee sax ne la kii moo gën a mën a xumbal baas bi moo gën a mën a bu dee diw sàngam boo ko tuddaloon borom xam-xam bu ragal yàlla bu mën a waxtaan dafa ah kii da waxam kii moom wax dëgg yàlla ñële la mën a waxtaanal kii moom camin bariya la mën a nekk ak wala ñuy kii bu doon waxtaan da ngay gis ñu nelaw il faut nga xaw a dëbb tuuti yëngal baas bi ba ca des ba ca jàngkat ba sax dañ lay wax ne jàngkat ba gën a nga xam ne moo gën a mën a xumb man caa gën a boole yu ca bokkul jàngkat boobu leen gën a kii ndax xañ na moom la xale yi gën a kii moom leen gën a dégg kooku lay jël waaw ba ci microcentral bi centrale bi ki leen koy yoral mooy koy yor làmb ja fële microcentral làmb ja mooy ko ko yor ca politique ba mooy ko ko yor ca football ba moo ko ko yor ca yeneen béréb yi ca def moom la ñuy woowaat au lieu ñu jël koo xamante nii sax ci diine ji wala ci taalibe gi lay yëngu déedéet dañuy jël ko ndax ko moo leen gën a mën a xumbalal moo leen gën a ba ca attaa buy woote sax bisu woote ba sax wala publicité yi ni am di ko def sax benn ña ngi koy jox journaliste boo xamante ni xañ na aw làmmiñam yëkkatiku na ci wax xamante ni wax ju aw ay wax la benn bu bëggumaa tooñ sa wax ju rafetut wala dara xam nañ leen ci mën a xumbal mën a mën a kebetu ñu jox leen ko wala ñu jox ko benn animateur boo xam ne animateur musique la boo xamante ni xañ na aw làmmañam xumb na coowam bari na moom lañ koy jox bu ko defee moom la ñuy jox kii bu ko defee dem na ba ci Euh, doo dégg mukk ñu ne imaam sàngam lañ ko tudde kuy jiite ci sàkk jàkk sàngam ab imaam la wala ñu ne ab sëñ daara la bu yàgg ci alxuraan ba yaramam chronique ci alxuraan ñu ne déedéet doo dégg ñu ne imaam sàngam lan ko euh, lan ko dara jale koo xamante ni jaamu ni yàlla ba ay tànkam lampañ ba ay tànkam lompañ wala jëbi sujjóot ba jëm ñuul kukk déedéet doo ko dégg wala ñu ne rek kii kat kilifa diine la goo xamante ni kàddoom ak i tànkam su koy yëkkati mi ngi koy yëkkati ci lu jëm ci yàlla ak yonante bi ku ñemee dëgg la waaye yooyu yëpp doo ko dégg. beneen ba cay des jataay ba jigéen ña nga fay gis ba ca ñoom kàddu jigéen ña nga fay gis jigéen ñi daw leen gis ñu muuru doo leen gis ñu def dara daanaka. boo ca doon xool benn benn daanaka boo jëloon émence boobu ñu lay won ci ne lii ak cant la jël émence ba diw sàngam doon tëgge fële. bëgguma tooñ kenn di tooñ tëggkat waaye beneen tëggkat wala beneen fo buñ la wanee image yi daanaka doo ko doo leen mën a xàmme moo yu jigéen ñi nekk fee rek ndax daanaka sax ñenn nit ñii la rek ñooy wuy ji fee ñooy wuy ji fii bu ko defee daanaka loolu la beneen bi ci desaat kàddu ya nga xam ne moo fay jib muy kàddu ya muy wax waaw maa ngi sant diw sàngam diw sàngam moom jàpp na ci bis bi lii moo ko fi defu lépp luñ fi naan ci boisson moo ko indi kii luñ f naan ci ndox moo ko indi ci nag yi lim ma jox ci nag àmbalagam ñëw na bi nu tàmbalee bis bi daf maa woo biróom ne ma bis ba lépp lu ci war yooyu yëpp ngay dégg di sant ñooñ lay sant bu nu demee ba ca wàllu daanaka sax programme bi niñ la ko tënkale woon nii lépp bu nu ba mu leer na ne daanaka xaw na noo jël leen ca soxla woon yëpp muy wàllu xaalis bi ambalo yi ñëw na daanaka la ca des kii na beneen bi ci des saa bu ko defee buy sant day sant ba mujj day fàtte sax alxuraan ji mu tuddoon ne diwoo ko leen koy jàngal wala dara buy sant di sant ñooña misi yam fay def wala lekk yu baax yam fay def ñuy jàng alxuraan wala ñuy kii ñoom duñ ko ñam xaar leen nangam waxtaan wit balaa tàmbali dan na ministre sàngam ñëw na ndax ñëwagut na kin fi yabal wala nan xaar diw sàngam mënumaa tàmbali te ñëwagut yanu saa yi ñu ne leen ñu ngi tollu béréb sàngam ñu ngi toll fii ñu toog di leen xaar jógagut ñu toog ñëpp toog ñu ne moom rek la ñuy xaar ministre sàngam wala dàngam ministre bi bu dikkee la muy wax ca politique lay jëm du wax dara lu jëm ci loo xamante ni kii la ki koy sant tamit ca loolu la koy sant atta sax mu àgg ba ne ko man maa ngi ci sa ginnaaw ndax li ma lebal loo dugg dugg naa ca man sax dugg ma woon ci politique waaye léegi dugg naa wala atta sax mu dem koo xam ne da koy ñaanal ba ne ko dinaa la fal man dinaa la jàppale mille 2010 nangam dinaa la jàppale dinaa fexe ba fal la li ngay xëccoo ci nit maa ngi digal ñii fi nekk samay taalibe leen dinaa wax ñoom ñëpp ñu jàppale la yooyu yëpp nag da ngay yëg na rek wax dëgg yàlla bu fekkee cant yi nii la mel nii nii wax dëgg yàlla da ngay xam ne du ñëpp nag ñooy def lii wala dara waaye yu mel nii dañ koo ràññee ci biir mbir yi te sëñ bi dana woon yëf woykat ba dana woon yëf yi fi bàmba ba woon kuy woote rax ci sa yëf ñu bàyyi laag yooya te yëpp ci ci bàmba nee na woote yi woote na ak woote du fi jóg kuy wuy ji seetlu kay wooteeg la muy woote loolu nag lu am solo la kuy wuy ji nanga seetlu lan lay woo ak kay woote la muy woote lan la ndax yëfam lay woote wala yëfi bàmba lay woote su dee woote yëfam ah nga xam ne yëfam nag wax dëgg yàlla dëru yëfi bàmba moo jar a wuy ji te yëfi bàmba nag nga wuy ji ko mbir yi daal nii la demee yes ca mën a wax yépp bariwut nanu xoolaat suñ digganteeg sëñ bi li nu sëriñ bi lebal li nu njabootam lebal li nu xiir ci boppam lim nu defal ci tawféex wax dëgg mbiram yi yëpp waruñu koo kii beneen bi ñu koy tëje mooy yi ñuy def yëpp mooy tax noon yi nekk ci biti wax ju bari ñu koy jëmale ci kii bi koo xamante ni ab daram dafa ñoŋ ginnaawam ñoŋ kanamam ñoŋ kenn mësta ay noon ya gën gën bon ay noon bi ñu jàkkaarloog ñoom danoo dem ba setal ko wécc ne ko tooñoonu defoonu dara ban ko tooñee ba yëg ne ñoo ko tooñ ba mu dikkee dafa ne afawtu anil ax daayi turan loo ci man kooku nag wax dëgg yàlla kenn waratu koo tooñ ci ginnaawam te nee képp koo xamante nii am na xemmamteef ngir dugg ci sama yoon wi wala mu xemmamteef ngir bëgg ma jàpp ma mu dikk ci yow gis ci loo xamante ni yaay tax mu summeeku ma mu génn ci man loola bisu pénc rek lay xaar ñu taxaw duma la ko jéggal mu ko yii nag lu jara moytu la yu jara dindi la ñu ngi ñaan ñu wommatu ku matu ci buum gi nga xam ne Sëriñ Tubaa sandaantal na ko ñu wommatu ci buum googu mu jëme ne fa nga xam ne mooy jëmuwaay ba nga xam ne kenn du fa mënu faa bañ a jëm mënta soxla dara te jëmoo fa mooy jëm ci yàlla ak ab yonantam te foofa rek fi la nekk diggante boobu fa xumtu maj soban ilayka min ka bi ka alayka wa raditu an ka tilli gi dafa feebar ñu ne ko lu lay faj mu ne sump ñu ne ko lu la feebar mu ne sump waaye Sëriñ Tubaa moom yàlla mooy moo koy feebar yàlla moo koy wéral kon nag nanu wommatu jëm fii nu sëñ bi teg ñu jëm fa waaw bu ngeen delloo ci ca ihdi jami ana siraatal mustaqim la taxoon ma koy taalif bëgg ñu ñëpp ñu tegu ci yoonu siraatal mustaqim te waxoon na nanu àdduna bi benn njëkkante moo fi am jëm àllaaxira waxalam bi na annama tafaawutul wara bil ilmi wa diini yakkoonu fasbira wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi jéggul lépp lu ci am ci njuumte asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq te di leen baal àq di leen ñaanal di sàkku ci yéen tamit ñaan dellu siwaat nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale fii ci seen site bi ñuy wax Tanime TV Seydina moo nekk ci xarale gi mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci cant yi ñuy woote te cant yu ci bari bu ñuy woote dañuy wax sant sëriñ tubaa wala sant sëñ jiw sàngam ak tarixa bu ñu mën a bokk wala fu mu mën a bokk waaye nag ñu seetlu ci fii ñu bokk ñun muy tarixatu murit ñu gis loo xam ne daanaka day mel ni phénomène bu xaw a yàgg la boo xamante ni euh, ñu bari daal xam naa bu ñu ci defee taxaw seetlu yi tamit yëkkati wuñ ko ñu dégg seen kàddu tey nag ñu bëgg cee yëkkati sunu kàddu ngir wax ci phénomène bi ñu koy defee euh, kenn du wax de wax yàlla sant sëñ tubaa ku ko dégg ci sam nopp wax yàlla li ngay njëkk a def bu fekkee am na benn ngëm yàlla wala lu baax nekk ci yow danga nga koy rafetlu ndax mag moo xamante ni dafee nekkoon dundam gépp gépp gépp mu def ko ci liggéeyal yàlla ak liggéeyal ko yonante bi ak yéene mboolem jullit yi ak ñi du julli sax lu baax kooku wax dëgg yàlla bu nit demee ba xolam yëngu mu yëg ne dafa war a sant kii rawatina nag ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ay taalibeem lan mu fegal leen lu bari ci ay nattu ba ci attaa sawara sax mu fegal leen bu dul woon mooma dëgg-dëgg dana ñaaw njortu ci seen digganteeg sawara waaye sëriñ bi liggéey liggéey bu rëy rëy bokk na ci kooku nag wax de yàlla bu nit nee da koy sant doo man lu dul rafetlu ko ba keroog ngay gis jëf janam ko doon sante ba xam dëppoo naa ni sëriñ bi moom doon sante yàlla ak doon ko sante yonent bi bu fekkee nag ñoom ñaar am nañ wuutee nag wax de yàlla da ngaa war a deltuwaat xool li ngay sante sëriñ bi ba xam noonu la wala déet ndax ngay sant war na buñ ko ne nii lan la doon sante mu bég ca ku ko dégg tamit bég ca ku gis na ko doon sante xam ne bég ca waaye sant ndax sëriñ bi koo xamante ni buy ñaan yaa malikal mulk yaa man jàlla an xawadi irham jamiixal wara yaxaadin rada koo xam buy ñaan day ñaanaleel ñépp ñu dul julli sax da leen di ñaanal wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma koo xamante ni day ñaan yàlla mu def ko muy liggéeyalkatul boo xamante ni day liggéeyal mbooleem ñu nga xam ne ay jullit lan ah kooku wax dëgg yàlla yéene leen lu baax kooku wax dëgg yàlla boo demoon ci xasida googu da ngay dem sax ba da ciy nekk mel ni ku nekk awakaab jullit yi ndax bàkkaar yoo xam ne lu leen suñ borom nar togg mu ne ko ñii kat ban bi nga leen bindee suuf si moo tax ñu lay mooy waaye du caagee nag sax li nga leen bind ci seen roogu sa roogu sell gi bind leen ci melowu sell woowu nga xam ne ca malaxul laxlaa loolu dan duñ la mooy mukk bu nu gisee cant yi nag li ñuy def boo di yëree carte yi nga xam ne wala nga déglu télévision wala rajo bi bu nu noppee ne ñu ngi sant ña ñuy njëkk woo ca bis ba wala di leen ko njëkk a bàyyi loo xel amaana sax ñu daraja leen ko da ngay dégg ñu ne monsieur le président ñu ngi lay woo ci bis moom lañ ko darajale attaa ñu dem ba ci ñu ne ma pare Marème fay Sall mi nga xam ne mooy soxnaam ñu ngi lay woo ci bis ba te di la ci séentu di la ko yëgal Marème fay bariwul bis yu muy teew ci yu mel noonu président bariwut bis yu muy teew ci yu mel noonu wax dëgg yàlla bariwu ko ataa ñu ne ministère sàngam ku nekk ci état bi ministère sàngam ñu ngi la koy yëgal di la fàttali sunu bis bi di la ca woo député sàngam ñu ngi la ciy woo ataa ñu dem ba ci chrétien sax koo xamante bokkuñu diine sax ñu ne ko ñu ngi lay woo ci bis bi ndax sunu xarit nga ñu ngi la koy yëgal dëgg euh, ñu ngi ci bis boobu nga gis ne ataa ñu dem sax ba boroom xaalis bu am dañ ko ciy tudd boroom xaalis boo xam ko am xaalis benn ngay góor wala ngay jigéen bu fekkee ci woy ngay yëngu wala ngay yëngu ci leneen it ñu ci bari dañ la koy yëgal war na leen sama bis ba maa ngi la koy fàttali sama xarit la. te ñii ñu koy yëgal ñëpp président bu fekkoon ne suba folleeku na kenn dootu ko yëgalati bis wala boog ñu néew Marème Faye Sall bu fekkoon ne. përëm moom waxaale ma ko ndax moom lu mu am pare borom këram a tax waaye bu borom këram follee ko woon yoratul dara kenn dootu ko yëgal ministre bii ñu koy waxee suñ ko wàccee sax daanaka dootuñu ko yëgal député bi ñu koy yëgal ba ci maire bi naa maire sàngam cere chrétien ban koy yëgal moom waxi nopp atta yooyu ñu koy defee yépp da ngay gis ne ñooñu leen ciy woo koo xamante ni chef de société la ko am xaalis waaye kenn koy gis ñu lim ko ci wala ñu woo ko ci ku xamante ni borom xaalis la daanaka du am ko amul xaalis du am da ko ko yëgal rek ngir yàlla amul. bu nuy woote sax li ngay seetlu bu nuy tudd alxuraan jeeg xasida yi ca mujj ga lañ koy tudd te dinaa ci ñëw programme bi kat ñëw ñooy kii bu ko defee ba ci bis yin koy jàpp diggante samedi wala dimanche lañ koy jàpp samedi wala dimaas bis yi nga xam ne moom la ñu bari di jàpp ci ñi nga xam ne te yonant bi salaa salaam dani bis yi gën ci bis yi jullit yi mooy ajjuma mooy sunu bis mooy sunu bis wala ñu def ko guddi ajjuma bis yooyu alxamis ci guddi gi ba sedd ajjuma walla nga def ko bisu ajjuma ci yoor yoor gi ndax bis boobu suñ feet la sax ñun feetu jullit yi bu ko defee fanu bu weer bis yi koy jàpp noonu ci bis yooyu lay doon ba ci weer wi attaane dañ koy jàpp ci la cinq le dix le treize bis yooyu nga xam ne bisu bu marqué lay boo xam ne dana jege fin mois wala dara fin mois boobu fekkee dafa tërëm première janvier dafa tourne première nangam dafa tombeek la cinq le dix le trois yooyu ci lañ koy jàpp waaye bis bu mooy yooyu duñ ko jàpp néew na loolu nga dégguñu ñu naa la la vingt la vingt cinq lañ ko jàpp ak wala la quinze lan ko jàpp wala la kii yooyu bariwut moom dañuy seet fi weer bi fi nga xam ne day kii loolu lépp da nga ciy jublu ne ñi koy tudde ak ñi ni kii dañuy xool ne heure kat dana fekk ñoom ñu am xaalis pour man leen a jox la ñuy dem ba fa nu koy defee sax béréb ya ñuy wax da ngay dégg ñu la soraano wala Grand Théâtre bis yooyu foofa lañ koy defee te foofa boo xoolee bis bi boo tuddee foofa rek la sa xel di njëkk dem mooy fu nu daan foyee la fu nuy foyee la moom moom moom buñ ko fu yóbboot fu ñuy àbb la dem di ko fa defee <coughs> koo xamante ni bérébu fowukaa la waaye amaana defee ko fenn ba ci dëkk yi koy defee bi ñu ko gën a defee benn ña ngi koy gën a defee ndakaaru mu doon capital ba gën a doon ci kii te wax dëgg yàlla siñ Tuubaa mi ñu koy defal de am na dëkk boo xamante ni yaakaar naa ne dëkk la boo xamante ni eh, am na ko laajoon genn kilifa sëñ Abdou Khadir mas naa waxtu weeru koor jot mu tàggu sëñ Moodu du ne ko damay woori maa bëgg a dem Touba pour woori foofu mu ne ko ah lu baax de baaxe ne fépp waaye sakka na ne Touba sakka na ne Touba kon jàpp naa ne waxte yàlla foofu tamit da ngay gis ne da ngay gi beneen bi ci desaat da ngay gis ne heure bu nu demee ba nekk ci la nga xam ne moo di bis baa yee ci xew yëpp ba ci eh, bis bi loolu lañ koy woote diggante samedi ak dimaas mooy doon bis bi benn bi ci desaat boo demoon ba ca. programme ba ba ñi koy jàng sax ataa ñi koy jàng ñiy waxtaan ñëpp waxtaankat bu mën a xumbal gën a mën a nettali xista gën a mën a sosal sëñ bi daanaka moom la ñuy jël ngir mu waxtaanal leen ndax nan naa boo waxee sax ñu ne la kii moo gën a mën a xumbal baas bi moo gën a mën a bu dee diw sàngam boo ko tuddaloon borom xam-xam bu ragal yàlla bu mën a waxtaan te ah kii dafa xam kii moom wax yàlla ñële la mën a waxtaanal kii moom ca men bari la mën a nekk ak wala ñuy kii bu doon waxtaan da ngay gis ñu nelaw il faut nga xaw a dëbb tuuti yëngal base bi ba ca des ba ca jàngkat ba sax dañ lay wax ne la jàngkat ba gën a nga xam ne moo gën a mën a xumb man caa gën a boole yu ca bokkul jàngkat boobu leen gën a kii ndax xañ na moom la xale yi gën a kii moom leen gën a dégg kooka lay jël waaw ba ci micro central bi micro central bi ki leen koy yoral mooy koy yor làmb ja fële microcentral làmb ja mooy ko ko yor ca politique ba mooy ko ko yor ca football ba moo ko ko yor ca yeneen béréb yi ca def moom la ñuy woowaat au lieu ñu jël koo xamante nii sax ci diine ji wala ci taalibe gi lay yëngu déedéet dañuy jël ko ndax kooka moo leen gën a mën a xumbalal moo leen gën a ba ca atta buy woote sax bisu woote ba sax wala publicité yi ni am di ko def sax benn ña ngi koy jox journaliste boo xamante nii xañ na aw làmmiñam yëkkatiku na ci wax xamante ni wax ju aw ay wax la benn bu bëggumaa tooñ sa wax ju rafetut wala dara xam nañ leen ci mën a xumbal mën a mën a kebetu ñu jox leen ko wala ñu jox ko benn animateur boo xam ne animateur musique la boo xamante ni xëy na aw làmmañam xumb na coowam bari na moom lañ koy jox bu ko defee moom la ñuy jox kii bu ko defee dem na ba ci Euh, doo dégg mukk ñu ne imaam sàngam lañ ko tuddee kuy jiite ci sàkk jàkk sàngam ab imaam la wala ñu ne ab sëñ daara la bu yàgg ci alxuraan ba yaramam chronique ci alxuraan ñu ne déedéet doo dégg ñu ne imaam sàngam lan ko euh, lan ko dara jale koo xamante ni jaamu ni yàlla ba ay tànkam lampañ ba ay tànkam lompañ wala jëbi sujjóot ba jëm ñuul kooku déedéet doo ko dégg wala ñu ne rek kii kat kilifa diine la goo xamante ni doom ak i tànkam su koy yëkkati mi ngi koy yëkkati ci lu jëm ci yàlla ak yonante bi ku ñemee dëgg la waaye yooyu yëpp doo ko dégg. beneen ba cay des jataay ba jigéen ña nga fay gis ba ca ñoom kàddu jigéen ña nga fay gis jigéen ñi daw leen gis ñu muuru doo leen gis ñu def dara daanaka. boo ca doon xool benn benn daanaka boo jëloon émence boobu ñu lay won ci ne lii ak cant la jël émence ba diw sàngam doon tëgge fële bëggumaa tooñ kenn di tooñ tëggkat waaye beneen tëggkat wala beneen fo buñ la wanee émage yi daanaka doo ko doo leen mën a xàmme moo yu jigéen ñi nekk fee rek ndax daanaka sax ñenn nit ñi la rek ñooy wuy ji fee ñooy wuy ji fii bu ko defee daanaka loolu la beneen bi ci desaat kàddu ya nga xam ne moo fay jib muy kàddu ya muy wax waaw maa ngi sant diw sàngam diw sàngam moom jàpp na ci bis bi lii moo ko fi def lépp luñ fi naan ci boisson moo ko indi kii luñ fi naan ci ndox moo ko indi kii nag yi lim ma jox kii nag ambalagam ñëw na bi nu tàmbalee bis bi daf maa woo biroom ne ma bis ba lépp lu ci war yooyu yëpp ngay dégg di sant ñooñ lay sant bu nu demee ba ca wàllu daanaka sax programme bi niñ la ko tënkale woon nii lépp bu demee ba mu leer na ne daanaka xaw na noo jël leen ca soxla woon yépp muy wàllu xaalis bi ambalo yi ñëw na daanaka la ca des kii na beneen bi ci des saa bu ko defee buy sant day sant ba mujj day fàtte sax alxuraan ji mu tuddoon ne diwoo ko leen koy jàngal wala dara buy sant di sant ñooña misi yam fay def wala lekk yu baax yam fay def ñuy jàng alxuraan wala ñuy kii ñoom duñ ko ñam xaar leen nangam waxtaan wit balaa tàmbali dan na ministre sàngam ñëw na ndax ñëwagut na kin fi yabal wala nan xaar diw sàngam mënumaa tàmbale te ñëwagut yenn saa yi ñu ne leen ñu ngi tollu béréb sàngam ñu ngi toll fii ñu toog di leen xaar jógagut ñu toog ñëpp toog ñu ne moom rek la ñuy xaar ministre sàngam wala dàng ministre bi bu dikkee la muy wax ci politique lay jëm du wax dara lu jëm ci loo xamante ni kii la ki koy sant tamit ca loolu la koy sant atta maa ngi ci sa ginnaaw ndax li ma lebal loo dugg dugg naa ci man sax dugg moon ci politique waaye léegi dugg naa wala atta sax mu dem koo xam ne da koy ñaanal ba ne ko dinaa la fal man dinaa la jàppale 2010 nangam dinaa la jàppale dinaa fexe ba fal la li ngay xëccoo ci ñun maa ngi digal ñii fi nekk samay taalibe leen dinaa wax ñoom ñëpp ñu jàppale la. yooyu yëpp nag dangay ngay yëg ne rek wax di yàlla bu fekkee cant yi nii la mel nii nii wax dëgg yàlla da ngay xam ne du ñëpp nag ñooy def lii wala dara waaye yu mel nii dañ koo ràññee ci bi mbir yi te sëñ bi dana woon yëf waykat ba dana woon yëf yi fi bàmba ba woon kuy woote rax ci sa yëf ñu bàyyi ak yooya te yëpp ci ci bàmba nee na woote yi woote na ak woote du fi jóg kuy wuy ji nay seetlu koy wooteeg la muy woote loolu nag lu am solo la kuy wuy ji na nga seetlu lan lay woo ak kay woote la muy woote lan la ndax yëfam lay woote wala yëfi bàmba lay woote su ah nga xam ne yëfam nag wax de yàlla dëru yëfi bàmba moo jar a wuy ji wooyee te yëfi bàmba nag nga wuy ji ko mbir yi daal nii la demee yes ca mën a wax yépp bariwut nanu xoolaat suñ digganteeg sëñ bi li nu sëriñ bi lebal li nu njabootam lebal li nu xiir ci boppam lim nu defal ci tawféex wax dëgg yàlla mbiram yi yépp waruñu koo kii beneen bi ñu koy tëje mooy yi ñuy def yépp mooy tax noon yi nekk ci biti waa ju bari ñoo koy jëmale ci kii bi koo xamante ni ab deram dafa ñoŋ ginnaawam ñoŋ kanamam ñoŋ kenn mësta ay noon ya gën a noonu gën a bon ay noon bi ñu jàkkaarloog ñoom danoo dem ba setal ko wécc ne ko tooñoonu defoonu dara ban ko tooñee ba yëg ne ñoo ko tooñ ba mu dikkee dafa ne afawtu anil ax daayi turan ci man kooku nag wax dëgg yàlla kenn waratu koo tooñ ci ginnaawam te nee na képp koo xamante nii am na xemmamteef ngir dugg ci sama yoon wi wala mu xemmamteef ngir bëgg ma jàpp ma mu dikk ci yow gis ci loo xamante ni yaay tax mu summeeku moom mu génn ci man loola bisu pénc rek lay xaar ñu taxaw duma la ko jéggal mu ko yii nag lu jara moytu la yu jara dindi la ñu ngi ñaan ñu wommatu ku matu ci buum gi nga xam ne Sëriñ Tubaa sandaantal na ko ñu matu ci buum googu mu jëmee ne fa nga xam ne mooy jëm waaye ba nga xam ne kenn du fa mënu faa bañ a jëm mënta soxla dara te jëmoo fa mooy jëm ci yàlla ak ab yonantam te foofa rek fi la nekk diggante boobu fa xumtu maj soban ilayka min ka bi ka alayka wa raditu an ka tilli gi dafa feebar ñu ne ko lu lay faj mu ne sump ñu ne ko lu la feebar mu ne sump waaye sëñ Tuubaa moom yàlla mooy moo koy feebar yàlla moo koy wéral kon nag nanu wommatu jëm fii nu sëñ bi teg ñu jëm bu ngeen delloo ca ihdi jami anna siraatal mustaqim la taxoon mu koy taalif bëgg ñun ñëpp ñu tegu ci yoonu siraatal mustaqim te waxoon na nanu àdduna bi benn njëkkante moo fi am jëm àllaaxira waxlam bi annama tafaawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ali fi ruqaari Tanim